soxna Biége Ba Mbodj di njiital association des sages-femmes du Sénégal ni bu sañoon ñu daal di koy amal nag ndax suñu soxna yi ñi ngi souffrir en silence soxna si ne am na ci jigéen ñoo xam ne nag dem nañu sax ba ñàkk ci seenub tànk ndax avortement non médicalisé Fatou Samb bokk ci réseau Siggil Jigéen ne li ëpp ci soxna yi nga xam ne rek ñooy def avortement clandestin yi boo xoolee ba ci biir seen loxo jotul seen ginnaaw Mame Makhtar Gueye di leen tontu ci biir yéenekaay bi ne lu mu ci mënti doon daal avortement médicalisé moom kenn du ko nangu tey ci réew mi kenn du ko nangu ëllëg ci réew mi ndax dëppoowul suñuy réalité yër leen yëglekaay boobee di réew mi quotidien enquête moom daal di amalu waxtaan ak kii di Khalifa Babacar Sall muy xam ne ne nag su bëggoon a dugg ci nguur gi mu ne dugg na ca bu yàgg a yàgg Khalifa Babacar Sall dellu suwaat nag ci nguur gi ak taxawaayam ak waa Yewwi Askan Wi ma ngay xam xamle itam ne moom Khalifa Sall bés bu faloo nag jiite réewu Sénégal lépp li ñu tënkoon ci assise nationale bi mën na koo dimbali ngir mu xam ni mu war a doxalee Barthélémy Dias code général des collectivités territoriales sauvé na ko loolee nag la bés bi le jour daal di xëy fësal ci xëtam bu njëkk ne nag li nit ñi doon jor ak di ko laam-laamee boobaak léegi ne nag mën naa ñàkk CESEP mairie bu ndakaaru nag mën naa bañ a am ndax bu ñu tënkoo ci article 135 ak 140 bu code général collectivité teritorial territoriales Barthélémy Dias nag mën naa wëy di doon kiy jiitee bopp mairie bu ndakaaru beneenub candidat di Anta Babacar Ngom nag moom ma ngay xam le ay yeesal yoo xam ne rek fas yéene na koo indi ci li nga xam ne rek moo di domaine industriel bi ci programme campagne boo xam ne rek mi ngi koy doxal jamono ji ca la yëkkatee yooyee kàddu nag ñeneen ñi nga xam ne rek yëkkati nañu seeni kàddu Sonko jëmale ko ci njiitu Sénégal bokk na ci allié Ousmane Sonko yi ci yéenekaay bii di Le Quotidien nag ña ngay sàkku ci njiitu mi nag mu daal di jëfee li nga xam ne mooy dogal yi bàyyeekoo ci ëttu àttekaay yi bokk na ci delloowaat kii di Ousmane Sonko ci liste électorale yi ñoom waa Lacoste ak waa F24 nag ña ngay soññu njiitu réew mi lu jëm ci mbirum Ousmane Sonko ak saisine bi nga xam ne rek waa Cour suprême war nañ ko caa def yéenekaay bi di Les Échos mi ngi ñuy xamal ne nag ñii di fa toll ci jiixi jaaxa am déet fekk jamono joojee nag le soleil moom daal di dellu siwaat ci programme présidentiel bi nga xamante nii rek ñu ngi koy amal ci këru diine yi journal boobee nag di xam ne ne lu toll ci quatre-vingt-quatre mille ci ko nag ci ëttu këru diine yi daal di ciy dugal lu toll ci quarante milliards jëmale ko ci ay jàkka ak juma ay sanctuaire ak église mu di ab programme boo xam ne rek Ndiouga Jim Sylla Diouf di ki ñu dippee architecte du palais moom moo koy piloté ñu wax nag ci leneen mu soxal promotion de la bonne gouvernance ak état de droit administration bi nag jamono ji mi ngi ci ay jafe bu ñu sukkandikoo ci Sud Quotidien ci biir yëglekaay boobee nag Pate Ndiaye nekkoon fi directeur du bureau organisation ak méthode ma ngay xam ne nag bu ñu demee ba politique moom di lalu ci kaw décision yi nga xam ne rek moom la ñuy jël xam ngeen ne nag loole du mën a joxe ay résultats yu ñuy xaar leneen lu ñuy xaar jamono ji nag ci Vox Populi bokk na nag ci koppar yi nga xam ne état bi war na koo jébbal ñii di concessionnaire yi ci Vox yi nag moom ma ngay xam le pëccaxoo gi am jamono ji nag ci mbalit muy jaabaa jonge ci digg ndakaaroo ginnaaw grève bi nga xam ne rek soobu nañ ci la ñu bëgg nag ñoom concessionnaire yi bokk na ci état bu Sénégal jébbal leen koppar yi mu leen yoreel yéenekaay bi nag di xam le ne kon tey jii sax état bu Sénégal dana génnee nag juróom-ñetti milliards ngir jagleel leen ko su ko defee ñu mën a delluwaat ci seenub liggéey ñu jeexalee yëglekaay yi ak libération miy dellu siwaat ci Boy Djiné yéenekaay bi di ñu nettali ne ginnaaw bi ñu ko jàppee ca Jurbel ba transféré ko ca camp bu Ndakaaru nag moom Baye Modou Fall alias Boy Djiné Bamba Ousmane Ndiaye Mamadou Lamine Diallo Modou Ndiaye ak Khadim Lo ginnaaw ba tëddee seen peine ba génn amal nañu nag ay cong guddik juróom-ñeenti fan jàpp fukki fan ci benn agence de transfert d'argent ba daal di fay dóor ab bal vigile ba ba ñu fa jógee nag ca Colobane la ñu dem guddik ñaar fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru novembre daal di fay songati ab société de distribution door a dem nag ca golf guddik ñaar fukki fan ak juróom benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom ñaar daal di fay song ab société gaañ di gardien bi ba noppi nag dugg ci génn kër fekk fa benn soxna duma ko duma yu metti yóbbu nag ay bijoux soxna si dencoon